waaw séeréer ba séeréer. ñàkk jom ci doo <laughs> a dof <laughs> ma ci seen plateau boobu eh? man man man dem dem dama la waxuma si yow de waaw ah, <laughs> man bi su yàlla su sama papa ak yaay su nangoo ma dëgg sa kër ga yow la nii eh yow amul loo wax yow ko may baax dafa dof nga mbay kenn bii la kenn xamul benn ndax xam nga yaa ngi fa wax ba ba ni loolu bu teree ma ba wax yooyu man góor ah. <laughs> naa la si trop. ndax lay waxaat <laughs> te fekk ma ne ma bii nga wala bee waaw ñi di ma envoyé vidéo bi rek ma <laughs> yooyu wax yooyu gën. Ah. yow madame Bamba yow loo wax. jàmm rek ah. laa yéene ñëpp. Ah. mais dafa am foo xamante ne cadre liggéey nit ñi dañoo war a xam ne liggéey la. Ah, ok comprendre nga. ok man ni ma mel ni laay mel. doomu aadama mënul wax a wax a wax ba fu may liggéeyee li may changé. rythme bi ma lu may wax te gëmuma ko barke alxuraan karim yàlla na ma yàlla man je suis comme ma ne ma ne gàncax gi sëlam ñay. ah yow sangu la. ah yow ci asos boobu nga bokk. xeet xeet boobu nga eh. eh. <laughs> am nga dugg problème bi am nga yaa si ginnaaw ci dafa baax. moo tax mënu ma laa bàyyi. c'est que sénégalais xam nga lan mooy suñu problème ñun. Ah. mooy. dañuy jaawale nit ku bëggul nit ku am problème. Ah. comprendre nga waaw waaw wax dëgg nit ku am problème parce que man yéen ni ma mel noonu lay dundee. waaye yow xam nga ne sëriñ ah? si li dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo calme. seetlu jiw waaw dañuy ñaan xam nga damay waxtaan ak ñoom rek fi seen ñaan ah, mais sama rythme bi ma nekkee bu ci kenn jëlee ngir yàlla wala suuf Sénégalais dama leen ñaan rek te yàlla tax man maa leen man man man yéen leen ma bëgg man maa leen bëgg bàyyi leen ma def sama rythme nay tàng nay tàng laa wax kon dafa war a tàng bu la ma bu la bu la teg na waaye. buñ la buñ la buñ ñoo ngi préparé euh, émission bi nay tàng. Ndege nag gis nga sénégalais actuellement ak internet yi li ñu wax yëpp nee nañ nga nga wàññi sa rythme quoi wàññi degré tàngoor bi parce que ni ngay def sëriñ bi si plateau bi métti na. man je suis naturellement comme ça. waaw ah. man je triche pas. Ah. mel. ni ma ah, mel noonu lay dundee. waaye yow xam nga ne seen li ma bëgg a li <laughs> a. wax. <laughs> Eh, sama papa moo woo sama papa harcelé ko de sama papa nekk de attanul ndey gay jël woon kenn ndey gay la jël ne ko moo doon feccikat bi ma ne ko waaw moom la kay ah mu ne waaw garaawul kay non sama xarit nga daal nañ dem di am mel ni. ah. kii fuuy na jëm portable yow la ne. di portable bi. Dudu indil portable bi. bu jaar portable bi rek xam naa ne. dangaa dangaa portable.